mbokk yi euh, kontaan nañu il est 5 heures 30 minutes 30 minutes wax dëgg yàlla mu nekk heure bi nga xam ne moom mooy démarrer émission Kouthia Show Mati à vous tey ci altine gii nga xam ne mm-hmm. nag moom mooy euh, altine gu njëkk ci mois de mai. dëgg la weer na la boo xam ne ñun duñ ko fàtte. déedéet la kay le danañ def anniversaire mm-hmm. bi ñu feebar bi duggee. waaye le 29 bi ñu feebar bi duggee man ak yow. Mati say mbokk xamaguñu ba léegi téye sa micro nga téye ko ala sa micro yaa na ko takk nii say mbokk xamaguñu ba tey ne yow da nga feebaroon kon le set incha allah. amul Mouhamed man dama ci ñi amoon corona ay mbokkam. bu non non si parce que en tout cas le 29 man génn naa le 29 non déggu ma rek le 29 day tombé ak anniversaire Ablaye Wade ci lay am 95 ans ci laa génnoon. waaw mu tombé mais yow. man la set daal dinaa sama anniversaire yéen le 11 ngeen dugg Mati le 11 yow bokkoon nga ci ñu corona say mbokk heure bii daaw mu fekkoon ci hôpital léegi nag wax dëgg yàlla kon nañu sant yàlla santal yàlla rek mati jeex na kon mbokk yi ñu bàyyi la programme bi bëgg fàtt fii ni ñu ne Abou Mouhamed di la a baax di la moo ma ak Mouhamed di la nuyu bu baax ko ñëbb sama kër waaye noonu laay dimbali ci corona ba yàqu wërngal këpp comme niñ neex laataa ñuy door dañuy santaat julliwaat sëlmalaat ci sangu-sang yi moom Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ba tey daan jërëjëfati Serigne Touba suñu yaakaar tey waaye ba ñu am mbégte bànneex jàkkaarloo téléspectateur Futurs Médias di leen présenté suñu gàmb yanj bi nga xam ne moo nekk ci table bi di gaamu li nga xamante ne mooy day bay day gis nga bëlëb bi nag macha allah pour góor rek moom moo ko tax a jóg boo leen gisee temps yi nag ah teew abu bilal bi ngeen di seen noonu ci li nga xamante ne bi mooy taay fi ñëpp di ma ko laajte secret bi leen rek la jël leen li nga xamante ne bi mooy gaamu day bay day pour góor gi te li ci gën a neex mooy lu mu sonn sonn boo ko sangoo rek da ngay daal di feex gaam bi gaamu énergétique la crème bi pour yéen ne boo leen épilé pare da ngeen di am li nga xamante ne mooy gaamu jigéen ñi collagène yu baax ngeen jënd ji ko mi ngi ci marché ne mooy crème bi am na li nga xamante ne bii mooy lait bi dina nourrir seen ko hydraté ko bàyyi leen ak teint bu doy waar ba tey li nga xamante ne mooy sama sapo bi pour bi rek <laughs> pulvélo moom moo ko tax a jóg gaam bu baax la te li nga xamante bi mooy vaseline bi karité bi huile de massage bi crème bi lait bi lépp ngi ci a am bébé sax mën na koo jëndal boppam abu ma xam ne nag dañoo nekk ci li nga xamante bi mooy jamono koor waaye ba tey may jaajëfal bu baax sama sponsor yaan ndax peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbëggee bu leen di am émission bii ni bëggee di reetaan grâce sama sponsor yaan ji ngir yàlla tey moom amoo leen loo wax ndax temps yii gën a waxuma dara yow kay jox rek. daal di waaw da ngay ba bàyyi ba ma pare. waaw maman bu ma yaakaar. waaw ayca sànnee ko def li leen sax. li ah. leen sax numéro bi 77 la. waaw 235 83 88 77 235 83 88. pare na waaw pare ngir yàlla yonente bi yaa ko jox ah, ngir yàlla yonente bi doo dimbali nga jox ko tey baasam nga xam ne depuis presque 15 jours yaa ngi ko ñaw. te yow tey baas gars yi ko ñëw te minutes. yow gën man a def sax ci man 3 jours. waaw waxatuma laa ne 15 jours. waaw yaa Seyda moom xam na loolu ba mu sañsee tey baas ba yàgg na. ko kon la moo fa la ko sañsee joxal kii que kii da ko war a fay. da nga ko war a jox tamit la. yow kii yow yow yow ko ba pare di ko di mu fayee ko la ba pare muy tardé te bu dee keneen la def ko rapidement loolu baaxul ah yow say naw la dañu mosoo fi ñawal kenn boobu ba léegi mooy jabaru Youssou Ndour ñawaloo kenn ci kër gi mati nga mel ni dafa ñaaw de kuy xalam di jaay barke ba yaa borom yaa ngi ci jaay te barke bi wax dëgg yàlla ñun a ñun la war a fekk baax yaa saydaa da nga a jox ay tisam waaw ñaari tise rek tey baas 30 minutes la une heure de ñaari pare na mais nga topp ci boobu ba léegi di bay bayal ah, loolu baaxul koy gis nii nag waaye yow kon mbokk yi ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di ànd ak yéen émission Kouthia Show ñuy sant nag sponsor xam ne ñoo ànd ñun kon moom ni ko waxee gërëm képp koo xam ne yaa seetaan émission Kouthia

Lamine Ngom ca Paal njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Ba ca Médina Gounass Serigne a Mbaye xalif Mame Cheikh Mbaye Serigne Mansour Cissé ca Pire Serigne Mame Abdou euh, Dramé xalif bu Ndande ñu koy ziar Alaaji Modou Mame Cissé ca Jaamal Ceerno Madani Tall xalif Ceerno Mudaga Tall njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé borom Daaru Ceerno Abdourahmane Bari borom Bogol ca Bogol yàlla ko defal jàmm Cheikh Massamba Gaye ca Ngayeen ca Daara Jolof yàlla yàlla cerno saamo saamo raaɓe cerno wala yaaɓe nekk ci Fouta yàlla ko defal jàmm góor gi Samba Ndiaye représentant xalif général des ci Ziguinchor imam Fassou Bodian xalif général de la communauté Diola Serigne Cheikh Salim Mbacké xalif Serigne Salim Mbacké yàlla yàlla gudda Bokar Alpha Ba ca Waraf Wonde cerno Modou Adama Gaye ca Ñank Idi alaaji Mouhamadou Gaye ca Mbour Tefesk Serigne Habib Gaye Mouhadamou Serigne Mansour Sy alaaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamil Serigne Ah, mooy foofu dëkk ca Ndindi yal ko yàlla defal jàmm sëñ Abdou Karim Mbacke yal na yàlla guddal fanam Karim Mbacke bi nga xam ne mooy sëriñ Mama Mbeng ak ah, Fari Mangane yal na yàlla guddal seen ca kër ga yal defal jàmm cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak suñu yaay bergère ñoom ñëpp yal na yàlla may fan bu gudd ak wér gu ci barke yonti yàlla Yesu Christa borom xel mu sell Fatma Fall responsable fanam Adja si nag doom la si suñu baay di Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum yal na xippee ci àjjana gën a kawe Serigne Babacar Abdoul Aziz si Tiwaawan alaaji Tafsir Sakho Ilimane yal na yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe di na yàlla may fan ci Sarakunda Serigne koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram góor gi Ablaye Ñang jànkatu xasaar la woon dafa dudd àdduna yal na yàlla ci àjjana gën a kawe Serigne Baara Cissé ca Jaxaaw ñu koy ziar njabootu alaaji Basiru Khayra Touré ca Medina Salaam Serigne Mansour Ndiaye xalifa sëñ Fallou Touré Serigne Mansour Ndiaye euh, Baye Fallou sëñ Fallou Touré ca Fass ca jàmm Cheikh Amadou Bamba Ndiaye dëkk ca dëkk bu ñu naan Loobudu Kër Momar Sarr yàlla yàlla guddal fanam njabootu Alhaji Mbacke Tandian ca Medina Tandian yàlla yàlla sàmm si njaboot gi Cerno Alassane Mbaye Taale Cerno Aliou Thiam yal na yàlla gudd fanam ñu ziar tamit sama papa di Serigne Mouhamadou Kabirou Sarr xale foofu Abdoulaye ah, fa Alaaji Moustapha gin gi neew gi yëpp yal na yàlla defal jàmm suñu xel day dem ci yar ci Alaaji Lamine Sarr nekkoon imam Sarr ci HLM 4 te dudu àdduna yal na a kawe di ziar doom ji Serigne Mbacke Sarr docteur bu mag bi yal na fan bu gudd ak wér yaram mbokk ki nga xam ne mooy Serigne Massamba Dramé njabootu Serigne Massamba Dramé nekkoon xalif bu Dramé ndimb ki fa bokk yi ñuy ñaanal Serigne Bakary Niang ñetteelu xalif mam Cheikh Ahmadou Bamba Niang yàlla ko yàlla may fan bu gudd a wér gu yaram di ziar tamit Alaaji Cerno Amadou Hamdou Aw moom tamit ñu ngi koy ziar bu Alaaji Set Seck nekk foofu nag ci daan yàlla ko yalla may fan bu gudd a wér gu yaram daal di koy defal jàmm bu ànd ak salaam te wér mii nga xam ne mooy Serigne Ahmadou Set Seck xalaaju Alaaji ah Serigne Ahmadou Seck xalif bu Alaaji Set sekk nekk ci xurdaan yal na yàlla gudd fanam Cerno bari fat fat ca Gàmbi di waaliw kaamil yal na ko yàlla may fan bu gudd sama papa di Alaaji Mansour Mbay xalif bu Alaaji Amadou Mbay Mbawdo yal na yàlla gudd fanam Serigne Modou Faye moom tamit ca Gël Tàppe Kéemaanu Borom Touba la yal na ko yàlla jàmm Cheikh Abdoulaye Soxna nekk ca Fatick ñu ngi koy ziar waaye ziar sama soppe sama xarit Cheikh Mahi Cissé bu Cheikh Aliou Cissé porte parole bu Medina Baye yal na ko yàlla may fan bu gudd garam Cheikh Mahi Cissé yal na yàlla guddal sa fan Cheikh Mahi Cissé ci Medina Baye yal na la yàlla sàmm

Abdoul Aziz Diaw yoof la dëkk taalibe bàyyi la yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gëram waaye imam Mansour Seck ca yëmbal yal na ko yàlla defal jàmm ziara tamit sëriñ Jili Samba marabu chef religieux dëkk ca quartier bu gudd ak wér gëram sëriñ ma xam baxoon ñu sant jaxate di ay waali kaamin ca cil ma Kebe ca Cambérène yal ko yàlla may fan bu gudd ak wér gëram sëriñ Alioune Boy doomu Alaaji Basiru Boy nekk ci dëkk bu ñang wañang yal na ko yàlla defal jàmm a ah, sama soppe baa nga noonu Serigne Basiru Fall borom njàqa Fall <laughs> ay waay Serigne Basiru Fall borom njàqa Fall waaye sama waa ji yal na ko yàlla may fan bu gudd wér gu yaram borom suukar koor bu neex bi neex a neex borom bu lem yal na ko yàlla defal jàmm waaw waaw waaw waaw di ko ziyaare Alaaji Ba Fa Karamaxo Saanoxo xalif général bu Touba Saanoxo yal na ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit kilifa diini alaaji Malick Soumaré nekk ca banque ba mag ba nekk ca jidda yàlla ko yàlla may fan bu ko dëgg yaram mbokk yi kilifa diini yàlla na leen yàlla sàmm xam nga wax dëgg yàlla man maa war a jël suukar koor dem jox ko sama papa yi waaliyu kaamin yi waaye nag xam nga rek des fois damay nekk ci ay tolof tolof yu gàtt rek waaye ñoom ñëpp sama papa yi maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen fan bu ko dëgg yaram ñu may ñaanal tamit di ma jox suukaru koor <laughs> sëñ Muntaxa sëñ Bas eh, sëñ sëñ Bas Abdou Xaadir rek ñoom ñëpp yal na yàlla defal jàmm man nag maa war a yóbbu suukaru koor foofu waaye nag ñoom dañoo baaxoo di ma jox suukaru koor kilifa diine yëpp dañ may jox suukaru koor waa kay fan yi nag <laughs> sëñ Bas Fall borom ñàkk Fall moom mu nga ca yoon ba di ñaanal sama papa ju baax ji di sëriñ Alaaji góor gi yan ma deer yàlla ko yàlla defal jàmm nit ku baax ngi nii kii jël këram xaaj ko fii alxuraan fii njaboot ga di fa dundee tey moom balaa balaa balaa sa ñaq di fend fay na la ñu fay jàngale alxuraan yëpp duñu toog naan góor gi daf ñoo amal weer kii moo gëm yàlla kii moo bëgg sëñ Babacar Sy rabbi taala anhu moo tax sëñ Babacar Sy da koy fekk si waaw waaw kii day day day ñaan ba gis sëñ Babacar Sy yàlla la yàlla dafal jàmm yàlla may ko fan bu gudd ak yu gërëm mbokk yi ah! ce que xam nga ne Ousmane Noël Dieng bi buñ ko téewul dina fi xeex te ki muy xeexal nag suñu nawle la di Pape Djibril Fall bi nekk ci TFM jàppante yu mag am na ci diggante kaddu goo xam ne Pape Djibril Fall da ko yëkkati teg ko kii di Ousmane Nawel nee na nag bu Pape Djibril Fall moo ci ñoom ñaar bu ñu bëkkante ci ci ci suuf ah jàmm mun naa ñàkk bañ am ci lan lay amee nee na bu Pape Djibril Fall noppul dana daal ci kawam ndax nee na wax ja Pape Djibril Fall wax moom ci boppam moo koy tontul ndax Pape Djibril Fall waxam dana ñëw am déet waaye jàpp leen ne suba incha allah dana ñëw tontu ki nga xam ne moom mooy. Ah, Ousmane Noël ndax dana ko tontu ndax Ousmane Noël kaddu yu mu yëkkati ma ngi ko yëkkatee ci jakarta man yi nekk ca Kaolack coola jolli na booy bi mer na te ah bu booy bi meree wax dëgg yàlla ka mu ko defal kaw ak mu ko seqal tamit dana nekk lu day waar kee làmmiñ la yor kee jëfam la yor làmmiñ ak bu ñu dee nar a daje ah wax dëgg yàlla dana tàng Ousmane Noël Dieng ma ngay tontu Pape Djibril Fall ca kaddu yu mu yëkkati nee na te dana ko defante moom ba mu saf sàpp bu naree saf sàpp nag ca koor ga waaye waaye nar naa neex baa ma ñu war a ngeen xeex waaye nag xeex ba tàmbali na ndax Ousmane commencé na napp waa ji te bu ko nappee xam naa ne booy booy booy booy Kaolack la booy Nante la seen diggante ñoom ñaar fa muy nekk booy ci dépendance ñu seeti Ousmane Noël ca kaddu yu mu yëkkati teg ko ci Pape Djibril Fall ba ci nekk ca TFM di journaliste bi moom boppam ñu seeti ko Euh, merci euh, ñaar taxawaay laa fi taxaw benn bi mooy ñëw pour def acte de citoyenneté acte social sedd la ndoxu ndogu ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay jàmbaar nañ ci télé bi tey sama décentralisation ci joxe ay jëf yu baax soo ñëwee fii ci garage bi nga xam ne mooy garage bi mag te dawal dawalkatu Jakarta yëpp nekk fii ci Kaolack toog fi dama ne ji daan seen doole gëm seen bopp ab journaliste toog ne Jakarta man yi waruñu leen financer waruñu leen ndàmpaay dama loolu moom ci boppam dafa xamul valeur yi xale yi nga xam ne ñoo nekk ci garage Jakarta Jakarta 400000 lay jar ku jël 400000 investir ko ci loo xam ne da nga ciy liggéey war nga cee mën a am loo séntu ngir yor sa njaboot dañuy joxe dépense di tabax seen i kër di si takk ay jabar di ci faj ay soxla di dagg bu mu gàccee kon ñii tey kenn waru leen jël di leen xeebe ci liggéey dama ne il faut que Pape Djibril Fall arrête te bu arrêté wul c'est moi c'est moi Ousmane Noël Dieng maa koy arrêté parce que moom xam na man xam naa bu arrêté wul waxee moom dinaa ko jëfee mais mais jakartaman yi ils sont au nombre de vingt mille jakartaman ñoo ñëpp dañoo am seen ay soxna am seen ay soxla di jàppale seen i soxna di faj seen ay soxla di takk ci xale yi jigéen yi di dépense ci kër yi dama ne bu leen jëlee xeeb leen ne ñii waruñu leen jàppale ci dara parce que ay duñu ay nit pourquoi mais Pape Djibril Fall il faut boo arrêté wul danaa dal kaw xam nga ma xam naa la te man samay wax ay jëf la du ma waxantu yow bu fekkee mës ngaa jënd benn mool rek ci senegal ne mool bii maa ko jënd mm. pour jàppale Macky Sall ci liggéeyam wax ñu fan nga def mool bi bu dee benn mool ma wàcce fa tonu ciment wax ma ko wax ma ko wax ma ko wax ma ko benn mool boo xam ne ñu ne mool bi par Djibril Fall moo ko participé ci état Sénégal ah, pour defar seen koñ wax ma ko fu mu amee dama ne bu amee nga wax ma ko bu dee benn mool la ma wàcc fa 40 tonnes mool yow day tey sax da nga wax ne kii tey day da ngay ànd ak ni président Macky Sall tey bu defee jëf du bon nga ne tey def na lu bon ba ñëpp ne waaw suba bu defee lu baax nga na kii def na lu baax waaye yow lu bonam lay yénn di sul lu baaxam maa la dul mayeti dara yow Pape Djibril Fall man Ousmane Noël maa ko wax da da ngeen da da da ngay wax rek man damay jëf kii jëf bokkul ak kii wax. dama ne yow wax ma benn beton boo xam ne mus nga koo for rek ci état Macky Sall tuur béton mu wër na béton bi boo ko teggee sax mën naa bënn poto oto ruu oto nga teggi ko rek teg ko fële wax ma béton bi fan la nga solaat fa ay béton il faut que tu arrêtes il faut que nga arrêté parce que luy jot jot na mënuñu continuer na à chaque fois mm. ngay génn di critiquer la chef de l'état le président Macky Sall ñun ñu ne tekk di la xool mel ne que yow da nga xam affaire maîtriser ko dama ne loolu dootuñu ko nangu damane damane gisuma sa soxna waaye jakarta man yii seen ay soxna ñoo dàq sa soxna juróom-ñaari yoon kon foo joxe dépense ñaari junni ñoom dañ fay joxe lu gën a neex ñaari junni ndax dañuy dawal ba tas di xëy di liggéey di gont di lekk supp di lekk yàpp di faj bu mu gàcce nga ne man xam naa ne yow si boppam li ngay sol sax dañ lay koy habillé musuma la gis sa nga taxaw jënd tissu na téer bi kaay ñëwal ma fay ko fi nga toog toujours boo toogee ci jàkkaarloo habillé par diw nañu bind kon yow investiroo sax ci li nga xam ne mooy artisanat Sénégal bëgg a taxaw ne président Macky Sall deful lii deful la il faut nga arrêté soo arrêté wul maa lay arrêté soo arrêté ma arrêté boo arrêté wul dootuma arrêté foo ma woo ma wuy nga may xala nañ ko defante ba ñëw ba ci jàkkaarloo yow def débat contradictoire nga wax ma fan lu positif ak waaw waaw dafay day doy dafay doy jën fa la walaay dundee day doy dafay doy il faut que ça arrête yaay kan dafoo dara ba pare bëgg ñu fàtte ay ay waxu maa ngi bàyyi ti ba nga laal ci benn jakarta man nga xool ils sont au nombre de vingt mille nga bëgg leen terroriser comme ça yaay kan. Ramadan, Ramadan. رمضان شهر mbégte weeru xéewal ramadan seeru ramadan ramadan seeru ramadan teeru koor weeru mbégte mbokk yi ñu ngi dem ma di kontaan ci seen émission Kouthia tey nag dañuy dem seeti ki nga xam ne moom mooy euh, candidat la ci dëkk bi nga xam ne mooy Comore Comore nag il la ma nga ca biir Afrique ah, di dëkk boo xam ne dañuy toll nag ci campagne électorale kii may présenté mu ngi tudd Monaïcha Youssouf Jalali première femme candidate pour dem ci élection présidentielle ci biir bu ñu paree waree rek ñoom danañ ci dem Monaïcha Youssouf Jalali est une candidate qui veut être présidente des Comores c'est la maman des îles c'est la lionne de Hamad Hamad qui va adresser ses ambitions politiques envers les populations et les peuples comoriennes qui sont aux Comores et qui sont à l'étranger et qui nous suivent. Maintenant, on va aller voir la dame, la lionne de Hamad Hamad, la maman des îles. Elle s'appelle la future présidente de Comores, Monaïcha Youssouf Jalali. Monaïcha Youssouf Jalali, Monaïcha, Monaïcha. la lion moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa la lion xamaat xamaat xamaat moo nay sa la lion moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa la lion moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa la lion moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa la lion moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa la lion moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa maman des îles je suis la lionne maman des îles je suis la lionne d'Amat Amat Je suis la maman des îles de Comores. Je suis là pour présenter mm. et montrer qu'une femme musulmane, il n'y a pas là où on a écrit sur le Coran qu'une femme ne doit pas se présenter pour des élections présidentielles. Notre ambition, c'est de faire Comores un peuple émergent avec la participation de toutes les Comoriennes mm-hmm. aux Comores et dans le diaspora. Mm-hmm. Hamad, Hamad, je suis la lionne. Je suis la maman des îles de Comores. Nous devons changer Comores, changer la mode de vie des Comoriennes et faire rentrer à tous les Comoriens qui sont dans les autres pays pour donner un coup de pouce, accélérer l'émergence des Comores par le biais d'Allah et quand je serai président de la République comorienne. <laughs> la maman des îles la maman des îles la maman des idées qui peut changer le comportement des Comoriennes pour l'émergence comorienne enfin dans ce peuple comorien pour une fois l'histoire retiendra qu'une femme est devenue présidente des des et Comoriennes Grâce à Allah, les femmes sont fatiguées. Ah On doit changer comment. J'ai toujours donné tout ce que j'ai eu mm. au peuple comorien. Voilà. Je suis la lionne de Hama Hamad. Ah je suis la maman des îles. Ah Et pour changer comment il nous faut changer nos habitudes et nos mentalités. Il faut que les femmes comoriennes accèdent à des décisions qui permettent à tout Comorien et Comorienne de vivre l'émergence personnelle et la, vie. la la Léona xaman xamen la maman des îles la Léona xaman xamen la voilà maintenant dans tous les peuples du monde on voit des femmes qui se présentent pour être présidentes mm-hmm. on voit des femmes qui sont là pour diriger des institutions internationales mm-hmm. maintenant il est temps que Comores machallah Comores ah machallah Comores moi en tant que lionne lionne de Hamahamat la maman des îles la maman des îles

Walaay bilaay. Walaay bilaay. Walaay bilaay maman. Walaay bilaay. On va changer Comores. Walaay bilaay. On va changer la vie des Comoriennes. Walaay bilaay. Je la lionne de Ramaramat. Je suis la maman des îles. Changer. Changer. Ndakuseke nandawo. ndaminaka nonose ndaminaka yoko simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba simba Ramadan mbégte weeru xéewal ramadan mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd a yéen seen émission Kouthia Show di bég nag képp ko xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel euh, sous l'égide du xalifa euh, Alaaji Bassirou Ndaw euh, bu Daaru Salaam kër bu Daaru Salaam moom moo joxe ndigal ba su sous l'égide de son fils non sur le site du xalifa alaaji Bassirou Ndaw ci déglu alaaji Bassirou Ndaw euh, bu Daaru Salaam waa dëkk bi nga xam ne mooy kër Samba Rahim euh, Dramé euh, ndigal ba nag su le site de son fils xalifa Cheikh Baye Dramé mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom mooy xalifa baayam moom ci boppam ki nga xam ne porte parole ba di Cheikh Ibrahima Dramé porte parole ba moo ñu jox nag li nga xam ne mooy communiqué bi waa daayratul Shah Kirina wa Shakirati Shakirati ñoom ñooy woote ziar bu mag bi nga xam ne at bu nekk lay am ren nag fas yéene nañ ko def dimanche le 23 mai ca dëkk bi nga xam ne nag mooy kër Samba Rahim Dramé ca Saloum dimanche le 23 mai bi le 2021 bi ñu ngi ko ci woo nag képp koo xam ne mu xaddam la di ci defal seen sëriñ Alaaji Ousmane Dramé ay ay ay ñaan yu am solo su la présidence effective de euh, Baba du président Babacar Dramé bi nga xam ne nag moom moo jiite daayira ba foofu ca Banjul ak waa Banjul yëpp ñu leen di woo di leen woo nag ak muxadam yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ay muxadam yu mag nañu oustaz Mamat euh, Momat nekk ca Kaolack di oustaz bu mag ca Kaolack di jàngale alxuraan ak oustaz Serigne Dramé euh, ca Kër Madiabel ak sëriñ Babacar Fall ca Touba di jàngalekatu alxuraan bu mag nekk ca Touba ak oustaz Abdou Dramé nekk ca dakaar ca Parcelles Assainies ak Alaaji Abdoulaye Cissé nekk ca dëkk bu ñu naan ca Sanc Alaaji Samba euh, nekk nag nekkoon bras góor gi jege ko lool wax dëgg yàlla ñoom nag ñooy am Euh, bés bu mag di dimanche le 23 mai bi euh, ci ndigal bi nga xam ne nag jot nañ ko ci xalifa ji Basiru Ndaw ca dëkk ba nga xam ne mooy Daaru Salaam ndigal ba nag doom ja nga xam ne moom mooy xalifa baayam di euh, Cheikh Baye Dramé ak ki nga xam ne nag mooy raqa ja di Cheikh Ibrahima Dramé porte parole ba ñoo ñu jo xibaar bi na ak ànd ceeg daayratul Shakirina wa Shakirati incha allah le dimanche 23 mai lay am foofu nag ci dëkk ba ñu ci woo képp koo xam ne wax dëgg yàlla Serigne Alaaji Ousmane Dramé mës na laa defal teraanga ci ñaan waaye nag waaye tamit nga nekk taalibeem foo munti nekk nag ci woo mu xaddam yépp yi nekk Sénégal ak ci diaspora bi teew ci bés boobu ndax bés bu am solo la fàttali ko ay ñaan def nag li nga xam ne nag mooy dem ca ja ba def fa ay ñaan waaye bu ñu xéwloo ba pare kenn ku nekk delluwaat ci bâche ba ñu wax ñu jaar jaaru sëñ bi waaye waxtaane ci euh, yoonu Seydina Mouhamed ci yoonu siratal mustaqim fàttali ko kilifa diine yi dafa ay ñaan waaye Serigne Malick euh, Cissé borom euh, borom euh, Firdawsi di doomu Serigne Bassirou Cissé di sëtu Serigne Mor Mbaye Cissé ca Diourbel kii wax dëgg yàlla nit ku baax la ku dama ko woo rek pour suukar koor mu def ko da koy def nag moom da ko baaxantal sama diggante ak moom suukar koor wàcc nañu ndax moom def na ko di nit ku baax nag di Serigne Malick Cissé ku yaru borom Firdawsi yàlla ko yàlla fal jàmm jàngalekatu alxuraan xale xale la waaye wax dëgg yàlla am ay relation yu mag ndax xam-xam ba ko baayam defam mu donn tamit maamam ja moo nekk ci moom di Serigne Malick Cissé ku baax yàlla ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla nit ku baax la maire Ami Collé Biteye ca yeen yaayu Babacar nekk ca euh, actuellement ca Dubaay ñu ngi koy nuyu euh, nag maire Ami Biteye bii euh, doom la ci président Moustapha Niass bu assemblée nationale ñu ngi koy ziar ko ñaanal jàmm soxna Aïda Gaye mu Serigne Saliou soxna Aïda gay mu Serigne Saliou kii fotom ngi nii soxna soxna soxna Ayda Gaye mu Sëriñ Saaliw euh, jigéen ji ku baax la gis nga ñi nga xam ne dañuy pettaaw di seet yëpp dama leen di gis ci internet waaye kii yàlla da ko may nit ku yàlla baax la ku bëgg Sëriñ Saaliw ba pare te ragal ragal mooy maanaam nit koo xam ne li muy def rek dëgg la ci def di jigéen ju maanu te tey di social nag man mosuma gis ku mel nii ku baax nag di social ca la nga xam ne moom lay am ci wërsëg moom la yoree njabootam di ci dimbali ay doomu aadama di seetkat bu mag nag di nit ku baax ëllëg moo fi toogee dinaa wax lu tax ma ne ku baax la am na ñoo xam ne dañuy seet du ñu gis am ñoo xam ne dañuy sol ay verre pour gis kii yàlla da ko may yàgg na may di ay mbir ma ciy teg sama bët nag waaye dafa jot nag pour nit ñi xam ko parce que ñii raas déem ak ñiy gàmmu dañoo ute moom nag ku baax la koo xam ne wax dëgg yàlla dafa set loxoom set soxna ay Ayda Gaye mu Serigne Saliou yàlla def sa jàmm yàgg dama am benn footballeur bi moo ko booleloon footballeur bi dem wax ak moom mu am fu mu ko wax ne ko foofu boo fa demee du baax lii moo la fay dal kooku at après mu woo man lañ ma waxoon ci ndaw si am na maa ngi feneen te ba mu ko defaloon ne feneen nga jëm moo tax it seede boobu foo ma seedal ko ko moom soxna ay daggay mu sëriñ saaliw di yàlla ku yàlla baaxal yal na yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram Moustapha Sylla depuis dëkk bi ñu naan Capriro Brescia ak soxna soxna faatu saw ñu ngi leen di nuyu dina ñaan kenn jàmm mbokk yi tey nag ñu ngi nekk ci émission bu neex bu am solo boo xam ne dëgg yàlla ca jàppande gi soxna Fatima ma nga xam ne moo nekk ca réalisation ba feggoog son bi nga xam ne dañ koo taf-tafal jéem koo débrouiller ba lépp sotti ci ndimbalu ki nga xam ne mooy Ibou Cissé cameraman bi nga xam ne bi mu ñëwee ci secours ngallu fekk fi soxna Sayda Mariama ñun ñëpp ñu daal cee taxaw ba képp koo xam ne tey sa xam-xam màccoon na ci abal ñu rek pour ñu tourner tey yàlla dimbale ñu ba ñu lépp sotti mbokk yi émission la boo xam ne tey ginnaaw yàlla yonent bi mun nañ wax ne émission la boo xam ne ku ne dugal nga sa loxo tonton Pierre ba balekat yi sax ñoo nañ jàpp la ñu utal ay fiil pour ñu tourner ko moo taxit presse en danger boobu noonu tey di xale yi nga xam ne dañ doon marche tey di ñaxtu li nga xam ne moom la ñuy dund te wal ay àq ak welleef nga xam ne ñoom la patron def seen diggante ak li ñu leen war a wegee te jox leen seen gëdd tey lañ doon def marche boobu moo tax ban Abou Bilal ma jàppale leen ci li nga xam ne moom lañ bëgg ndax am na loo xam ne du motale faw nit ñi jàppale leen pour ñoom ñu mun ko def ndax maan yi gis nga barki démb bu station essence yi jékki-jékkee grève oto yi di ran ci autoroute bi caméraman yi bés bu ñu grévoon tey Sénégal du ñu xam lu xew ndax boo taalee tele gis image bi wax ñoom ñoo koy filmer internet bi li ngeen di seetaan ci site yi ay caméraman ñoo koy def kon ñoom bu ñu defoon vingt quatre heures du am information du am dara ndax ay technicien lañu leen yàlla may ñooy taaral kanam gi di nga gis des fois koo xam ne dafa ñaaw caméraman def la nga rafet te yàlla tax sagal la sutural la li ngeen bëgg yéen cameraman ak cadreur yi yal na ko yàlla defal seen xeex bi dinaa ci ànd ak yéen ba mu mos sëkk yàlla defal leen jàmm ndax lii ngeen di def nii doo leen jàng métier ba pare ay machine di ko remplacer temps yi dëkk bi nag caméra télé yi dañoo commencé jël ay caméra robot ab robot wax dëgg yàlla loo ko yéen mu antan na ko du añ amul jabar takkul doom tak sëyiwul seetewul demul màggal demul gàmm danaan cot ci taxaw rek boppam bu ron mooy caméra robot yooyu nga xam ne day mel na xaal bu ñu ibbi rek defal ko ibbat ñooñu nag dañuy yàq liggéeyu cameraman yi nga xam ne dañoo yor seen njaboot am si soxla ci dund ba si yàgg ñu bëgg leen remplacer ay machine lànk leen bañ leen caméra dañ koy gàddu daw di dem ak dañ koy filmer de ko centré waaye machine bu def nii rek ak boppam rek xaal ne xaj di taxaw courant koy dundal ku ñàkk jom la moom caméra caméra robot waaw kay bu leen dem di jàngi beneen métier lii ngeen xam jàpp leen ci yàlla dana ci fekk mbokk yi waxtaanu koor ci yor yoru koor tey nag dañoo def conférence boo xam ne dañoo ñëwoon fii tey fekk si leen ndax li ko waral moom mooy situation bi nga xam ne moom la ñuy dund moo tax ñu def conférence kon tey du am appel téléphonique dañuy waxtaan ci li nga xam ne moom mooy jaar jaar Abu Bilal ci yor yoru ci bëccëgu koor mbokk yi su ko defee dañuy waxtaan ci li nga xam ne mooy jigéen joo xam ne dafa am situation yàlla dogal mu am bëgg am borom kër te amul borom kër te mënul wax kenn ne damaa am bëgg am borom kër te yàlla yar ko ci kersa ak muñ muy dund loolu ci biir këram nan la mën a def ba am borom kër te du ko wax kenn te borom kër ci boppam mooy fëgg na ko maa ngi nii loolu da ngay seet ustaas boo xam ne turam day tudd sàmba bu fekkee am na jigéen yoo xam ne yàlla da may barke ñu am xaalis te bëgg sëy te am kersa dem wax ne ñoom amuñu borom kër ndax personnalité bi leen yàlla bindee da ngay xool ci ñuy seet ci télé ku ci tudd sàmba xool koo xam ne santam am na ci alxuraan ndax boo ne baane siin boo boolee sàmba boobu teg ci siin bi wax dëgg yàlla booy seet góor bu mën a yor jigéen ci àq ak yelleef te yàlla tax di ci gis koo xam ne ku tudd sàmba sant Seen te yàlla def ko mu am ay tur yoo xam ne melokaan yu bari la boo ko jàppee jàpp nga góor sëykat bu la nar a sëyal fóotal la paasal la dafa la lépp te yàlla tax loolu dafa nekk loo xam ne boo ko gisul tamit fexeel ba xam ku mel noonu laaj numéro am jokkonteeg moom yàlla dina leen jubale ba boo ko waxee dara dana ci teg li nga xam ne moom mooy am mbokk yi ñu ngi ibbi nag conférence bi fas yéene bàyyi ñi nga xam ne moom mooy daayira sopp Abu Bilal bi nga xam ne moo nekk fii ci wàq Nguna nga xam ne dañu am ay laaj jëmale ko ci ustaas bi wara ay jaar-jaar ñu bëgg laaj ustaas bi fan la jàngee wara loo xam ne daf la tënku seen bopp ñu bëgg koo xam ci ay ñaan pare naa ibbi li nga xam ne mooy micro bi jox ko ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ak soppe yi nga xam ne ñoo toog fii ci conférence bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci dëkk bi nga xam ne mooy wàq nguuna wàq nguuna nag wax dëgg yàlla tur la boo xam ne mën nga koo dégg ci olof waaye boo ko xoolee ci arab moom mooy guy gi nekk ci diggante àjjana ak aras xam nga saalum saalum yi lu tax yàlla def Kaolack di tàng gis nga boo xoolee saalum saalum dëgg muy dem mu jàng ko ak mu bañ koo jàng yàlla da leen may li nga xam ne moom mooy tawféex ndax ab saalum saalum foo ko fekk dafay nekk koo xam ne ci mbir alquran wara ci mbiru diine da ci tarbiyu ba am ci li nga xam ne moom la bëgg daane koy jàngal keneen rawatina barki démb ba gis neen xale bu ndaw bi nga xam ne moo gagné concours bi ay mbokkam ak ay maamam yëpp ñu ngi bàyyeekoo ca cosaan ca nga xam ne mooy dëkk bi nga xam ne mooy saalum saalum saalum ñett yi nga xam ne boo ko seetee ci moom da ko gis nangu naa bay nangu naa liggéey waaye nangu naa jàng alxuraan te saalum saalum dafa xam li nga xam ne mooy diggante sëriñ ak taalibeem ak mbokk yi boo dëkkee saalum li ko dale dalee Kaolack jàpp ba ñooro mambanderi wàq na dem ba ca Gàmbi ñooñu ay nitu yàlla la ñu xam ne wax fa dëgg yàlla xamuñu dara lu dul ab mbay ak jàng alxuraan ak dimbale te yàlla tax tàngaay bi nga xam ne moo am ca Saalum nag baatin la parce que yàlla dafa leen defal ñu nekk ñoo xam ne bu tàngee ci nit ñi nit ñi di ko jàmmat ñoom dañ cee juddu di ko fekk ba nekkul lu ñuy jàmmat kon tey conférence bii ñuy defee fii ci wàq nguune dañuy wax ne taalibe yi nga xam ne ñoo jóge dakaar ak seen délégation gis nañu li nga xam ne moom ngeen ñëwee xam nañu ne yoon bi metti na waaye dañuy leen di dimbali jël micro bi wax fa dëgg yàlla jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci tant bi te am ay laaj ñu daal di koy laaj seen oustaz mu daal di leen ci tontu ndax la ko waral. waaw oustaz Abou Bilal. wallaay waaw. gannaaw ba ma la nuyoo ba dalal la di la ziar. Uh-huh. ñu ngi kontaan lool ci sa uh, waxtaanu jaar-jaar bi. Uh-huh. léegi nag ci man ci sama laaj. ma uh-huh. yaakaar ne dinga ma ci mën a saafaraal ndax yaa ngi wax. àdduna bi yëpp di la déglu. Uh-huh. yow oustaz Ngéwél dañoo gis ni tata yi. Uh-huh. à chaque fois boo ci duggee. Uh-huh. góor ñi dañuy nekk sa ginnaaw di la def naka sudul noonu. rawatina weeru koor bi nga xamante ne danga war a sàmm sa cër yëpp. même bu dul koor loolu lañuy dund. ñu ne nag foo ñu dox ko ñaxtu pour ñun ñu am biisu jigéen ñi ndax sonn nañ lool ñu ne woon nag nañ la ko wax. Uh-huh. nga mën ñu cee jàppale bu baax a baax. jërëjëf soxna tur nga fàttali ma tur bi nan la. maa ngi tudd soxna Fatou. soxna Fatou foo ko maa ngi ko ba golf. golf nga bàyyeekoo ca dakaar kon mag mm-hmm. mbokk yi dégg ngeen ko kooku nga xam ne ci taalibe yi bàyyeekoo dakaar di laaj wax dëgg yàlla weeru koor dañu war a ber jigéen ñi ber góor ñi ndax bu fekkee dafa am oto yoo xam ne dañ ko tuddee tata tata tata tata nag bu fekkee ne ci. kallaama francais la mooy tanta ñu ne ko tata waa léegi comme que tata yi nag dafa yëngook turu jigéen dañu ut oto yooyu nga xam ne ñooy tata ñu bàyyi koog jigéen ñi ut ay oto yu tudd tonton bàyyi koog góor ñi tata yi jigéen ñi di ci yéeg tonton yi góor ñi di ci yéeg na jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci tata yi toog ci tata yi tonton yi wàcc tata yi bu tonton yi duggee ci tata yi ñoom ak tata yi bu ñu tasee day mel ne tonton tata kon tonton yii yéeg ci tataa yi di tatafu tataa yi nañu bàyyi tatafu tataa yi ndax tonton yi li leen war moom mooy aar tataa yi ndax jigéen boo gis nag jàppee ko sa tante kon tataa la waaye nag kaar bu dawee ba sukkus am ñu nekk ci ginnaaw fekk si ñu ci kanam te bu fekkee ne ci kanam ay tataa nañu tonton yi nekk ci ginnaaw tonton fekki na tataa te doo woor ba ngoon to tonton di fekki tataa ndax ñi nekk ci tata yi dugg ci tata yi ak tonton yi bokkuñu dara dox daje la kon état senegal moom tamit na jéem a fexe bu ut ay tonton góor ñi di dugg ci tonton yi jigéen ñi di dugg ci tata yi boo demee dëkk yu mel ne Arabie Saoudi Qatar ak dëkk bu ñu naan Benghazi nekk ci bët gànnaar Israël ca Palestine jigéen ñi seeni ak yoon góor ñi seeni yoon jigéen ñi seeni oto góor ñi seeni oto senegal la ngay gis oto yoo xam ne ni suppu kànjee fekk ci yaay maam bàjjan góor ak jigéen mag ak ndaw ca paaxoo ci biir bi oto freiné góor fekk jigéen sukkus day am doo daan yi bëri nañu bu yéegee jigéen ñi yéeg ci kaw góor ñi bu wàccee góor ñi wàcc ci kaw jigéen ñi te loolu mën naa ñàkk kon mu ñuy wax état senegal nag mu jóg ci loolu bu fekkee nag defuñu ko nag ñi nga xam ne ñoo moom tataa yi nañu jàpp ne tataa yi yéeg ci biir tataa yi te tonton yi di leen fekk ci tataa yi di tatafu tataa yi borom tataa yi ci boppam nañ jàpp ne wori nañ mbokk yi kon conférence baa ngi noonu waxtaan baa ngi jolli kooku daanu leer foofu na bàyyi wax na bàyyi yuuxu yi kii daanu noonu na bàyyi yuuxu yi na bàyyi yuuxu yi na bàyyi yuuxu yi na bàyyi yuuxu yi dal leen dal leen am na yoo xam ne jaru ko mhm. booy daanu da ngay daanu fu ñu la mën a yëkkatee te ay ñi fi nekk dañoo yooy dañoo dañoo woor ba ngoon doy na mbokk yi ñu ngi profité di ziare Serigne Mara Thioub ca borom ca Daaru Thioub di ko wax ne conférence bi nga xam ne def na ko ak uh, Aliou Sall ñëpp rafetlu nañ ko waa Daaru Thioub yëpp génn nañu di ko sargal ci bés bu rafet boobu nga xam ne ñëpp daa dee génn ak ma Bay Sawaar ñooñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ne leen déwén incha allah Abou Bilal moo leen di conférence al dama gañe woon ñaari conférence benn ma dénku ko oustaz Aliou Sall moo fa demoon waxtaan ak ñoom waaye ñoom ñëpp bég nañu di gërëm tamit Serigne Mame Mor Mbacke borom baatin moom tamit woo na ma ci inauguration ba nga xam ne mu ngi koy amal ca béyti fas yéene fa ibbi daara boo xam ne day am jàkk ca biir bu ñu koritee ba pare moom Serigne Mame Mor Mbacke borom baatin social Serigne mu Serigne Habibou Mbacke surtout maam Madoumbe Xabaan daf ma invité pour ma dem conférence ca dëkkam bi nga xam ne dañ fa war a inauguré daara boo xam ne ca dëkk bi ñu naan béyti danaa fa dem bu soobee yàlla yor caabi ya ibbi daara ja ñaanal nit ñi mbokk yi kooku dafa bëgg jël parole. ay ca jox ko ñu ngi lay fay di la gërëm bu sant. waaw di ñëwaat ba tey rek ci sama question bi man umpale wu ma ne depuis boobu léegi maa ngi woote mais comme que tey conférence la te boobu léegi maa ngi koy topp. waaw moo tax tey ma daal di ñëw jàkkaarloo yow ci conférence bi ba tey di la ko laajaar rek di ci taxaw ci wàllu li nga xamante ne mooy make-up bi yaa oustaz. mooy yi. waa mais xam nga xam nga boo ne make man mag bi seetaan xamul loolu. yaa oustaz poudre beeg poudre yi waaw ba tey moom la wax nga dëgg ndax ñoom xamuñu li seetaan mais yaa oustaz dama ne yow kañ ngay bàyyi. bàyyi lan ñiy maquillage seen kanam yi ak ñi koy make up. waaw. da nga leen war a bàyyi parce que ñoom yow ba nga commencé wax ba tey dara sottiwu ci. waaw ñu ngi def ba mu baax. di bomb seen kanam ba mu ba mu te nag yaa oustaz nag lii dafa rafet nag. waaw. li ñu def dafa rafet nag. waa loolu nga gis. moo moo am sax nag. léegi lan ngay laaj ndax damay bàyyi wax ji wala ñoom dañuy bàyyi. Oustaz Mbaye daal man loolu laa laaj comme que tey dangaa tànt woote conférence bu mag ci digg conférence bi laa la koy laaj na xanaa tey nag di nga bàyyi wax ji bàyyi leen. <laughs> la wax fa dëgg yàlla maa ngi rafetlu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk wal fajiri ndax bi ma ko tàmbalee wax fa dëgg yàlla dañ maa woo ne ma macha allah oustaz wax nga dëgg dañoo foogoon ne rek ne. yóbbalu jigéen mooy fexe ba taaru waaye bi ñu demee ba seetaan émission yi ñoom bàyyi nañu ku ci mel ne ñoom Xarit Silla nekk journaliste foofu ak Fat Bintu ñoom ñoom bind nañ ma leetar ak Aysa Jaxate nee na ñoom bàyyi nañu waaye fee nga xam ne mooy Sen TV jigéen ba fa tudd ku sew ku xees ki si Aysa ah nen na Aysa moom ba tey bawul ma ngay pentuuru ba tey te nen ne bu sëlmoo lay dàq ka bu pentuuroo képp ah wàññi na nee na Aïssa waa wàññi na xef yi da ko taayee gis naa ko démba ndax man dama yor sama ko waa waa waa waa 2S moom nag dañoo dem sax ba jël keneen koo xam ne moo fi nekkoon fii ci télé bi di aram aram aram aram Touré barke démba gis naa ko xam nga moom dafa tuuti ne dafa tuuti ni cuut moo da ko mën a ko aram boo makkiyee da ngay nuróog rabatu picc rabatu mooy picc bu xees ba nga xam ne ni nga tuutee noonu rabatu nga may jox wàññil waaye bi ma sappee gis naa loo xam ne dama yaakaaroon ne ah ndax waa parc an woote pour sponsoriser émission bi ndax demba bukki yi ma gis ñu toog ci télé bi démb wax dëgg yàlla def puudar yoo xam ne seen góor bi leen toogaloon lu weex lu mu soloon dafa dem si yàgg commencé xàll ndax make up ba conseil clim bi ci boppam mooy yàbbeeku ci kaw ay waay make up xanaa xam ne boo gàttee du la jàpp make up du pour ku gàtt make up borom kanamu bu yàqu moo koy réparé waaye make mooy puudar boo amee paxu bakkan waroo ko def ndax da koy xóotal boo amee lex da koy guuxal te ñi toog démb ci plateau TFM bii am na ci ñoo xam ne seen lex yi day mel ne ñaari kóone yoo lokk dama ne ñi fa nekk ñëpp dañoo ñaaw ñoo ko doon réparé nag duma ma ko bàyyi démb ñaari xale xam nañu fii ci derkele ndax kenn ki daa taal bi gis kenn ku sol lu mel lu uul am na couleur yoo xam ne waruñu ko war wane ci télé ndax uul boo ko gisee ci koor da ngay màttantiku kon mbokk yi ñu nga xam ne ñooy puudaru ci koor gi di tiital nit ñi di yee fitna di yàq seen ay ay ay naafila ndax boo taalee télé yem ci naafila boo xam ne da ngay jàkkaarloo day nuru bukki mën na laa loo kon mbokk yi question boobu du ma ci ñëwaat fekk ñoom bàyyiwuñu waxtaanu koor ci yor-yoru koor su ko defee. Ah, ki nga xam ne suñu soppe la di Kumba Diallo nekk ca an Maris di Mariama Dramé soppay Serigne Mbaye Sy Mansour ñu ngi koy nuyu Ndeye Assou Diop tamit ca France moom tamit ñu ngi koy nuyu màggal Serigne Mamadou Sougou Wadane gi incha allah di màggal gi nga xam ne seriñ Touba moo ko joxoon papam Serigne Ahmed Tafsir Sougou ñu ngi koy célébrer maanaam tey defe naa tey la tey am ñaar fukki fan tey dañu am ñaar fukki fan tey lay am foofu ci dëkk bi nga xam ne mooy Wadane waa di wax nag que soyez anniversaire à Boubacar doomu Mariam Ba ak Ousmane Ba foto baa ngi noonu de Khady Gaye bataillon matériel qui lui souhaite longue vie Ousmane Sonko waaw Boubacar Sonko waaw doom la ci Mariama Ba ak Ousmane Ba ñu ngi koy Ousmane Ousmane Sonko kon ki ko bind moo juum joyeux anniversaire à Nar Sall Seri Boubacar Diop depuis Wakam koo ñu Abbas foto baa ngi noonu de la part de Libou mu ngi koy souhaité happy birthday to you mbokk yi waxtaanu koor ci yor-yoru koor su ko defee ñuy. joxewaat conférence waa jox bàyyi leen daanu yi bàyyi leen daanu daanu yi ah waay bàyyi leen daanu yi waay da ngeen mel ne ku fi nekkul ah bàyyi leen daanu bu leen yàq loolu joxal micro bi soxna si mu laajte waa soxna si yow nañuy déglu. salaamaaleykum yaa waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la ziar. ngi lay fay. am mbégte ni nga ñëwee nii daal ñu defal conférence bu ala dawme. waaw layo layo la. waaw. <laughs> bàyyi leen ko puus la mu laaj waaw. yàlla la suñu borom fay bu baax a baax. amiin amiin yokk xam-xam bi yokk wér bi. amiin li may laaj mooy la dañoo gis ni fan yi ci koor gi ba mu commencé ba tey xale jigéen daal ñu ngi yiwal bu baax a baax. wàññi nañ xeetu bàyyi xeetu dangaleeg xeet yooyu noonu dañ koo daal di wàññi bu baax a baax a baax a baax wàññi péri gi commencé di muuru léegi nag fi ñu toll ñu ngi naan korité baa ngi jub si ñu ngi waajal soirée waaw di waajal tànn beer si jouru korité beeg yooyu noonu loolu nag laa bëggoon lu ñu ci yedd leen ndax ñu continuer yiw gi ñu yiw nii ci koor loolu dafa neex. waaw loolu nga wax noonu dama ko seetlu. maa ngi lay gërëm ci laaj bi nan nga tudd. man maa ngi tudd Yéemu. Yéemu. Yéemu Diop kon di nga yéemu ci laaj bi ci tontu bi. Yéemu Diop maa ngi lay xamal ne wax fa dëgg yàlla bu koor gi demee ba ci ci pandaw ba mu des fukki fan ak ñaar. dangay gis ñu doon muuru dañuy muureeku ñi doon ñi ko doon afal dañ koy dangal ñi ko doon yëmbaxal dañ koy seere ñi ko muuroon dañ koy paccal ndax lan la nga muñ ba toll ca ca paandoo ba boo ko muñee am lu mel noonu yàlla moo ne ku wooral ma fay la boo ko wooralee nag daal di sutural sa bopp ci koor gi balaa ca paandaw gi yàlla may la loo woree waaye boo ko yaakaaree ci keneen yaakaar ne boo ko afalee wara nga gàttal ko wara nga paccal ko boo ko afalee wara nga gàttal ko wara nga paccal ko da nga am li nga bëgg yaa ngi nax sa bopp waaye tamit télévision yi responsable nañ ci bépp télé bu publicité soirée <laughs> ci biir koor gi te ñu xam ne bu buñ ci jógee dañuy dem ca koor ga yaa ngi def ci xelu xale yi pare leen waaj leen ñoom ñëpp nañu boycotté yooyu bu ko benn télé teg ku ci tëgg soirée yaa xam na nga bàyyi ba koor gi jeex nga publicité ko waaye bu bëgg xaalis bu la jël publicité soirée boo xam ne dañuy dajee ndax fañ ko yëgee ak fañ ko yëgle nañ ko yëgee kon takk leen seen biir tele yi te muñ ndax la ngeen gañe ci koor gi doo leen ko amaati waaye gañe xaalis ba pare dem ba ci ci pandoo ba yàq ko ndax ay kaale ñu daje soirée gintee wala ma dinaa la jege maa soo ngeen soowante loolu am na leneen lu ko jàpp kon télé yi responsable la te ngeen di xool ci série yi génn ci tele yi weeru koor jigéen ak góor waru ñoo dend ba awra góor ak awra jigéen di jegante maanaam gémmin fekki gémmin gis nañ ko ci ay sëriñ nañ ko moytu ndax koor gi ñëppay seetaan nañu bàyyi ba yooyu jàll bu fekkee ñoom mën nañ ko diggaal ak suñu borom ñu dijjanti ko waaye kon mbokk yi soxna si li laaj am na solo lool boo ko yëmbal xalee ba mu yëmbax na nga ko eggali yëmbaxal ko ba koor gi jeex waaye yëmbaxal ko dangal ko ca cappaandaw ga afal ko ba mu ne af ibbi say bu na porte ouverte ku dugg bu fa ca nga yàq ko teg kon mbokk yi ba tey laaj yaa ngi noonu ñu daal di continuer waxtaan bi bàyyi leen daanu yi ki ci ginnaaw bàyyi leen ko aywa dee leen daan jàpp leen ko jàpp leen ko jàpp leen ko su ko defee mbokk yi ñuy waxtaan ak yéen ci waxtaanu koor ci yor-yoru koor di ci laaj ñi nga xam ne ñooñu si ay soppee tey nag ngeen xam ne wax fa dëgg yàlla émission bi ni mu tëddee la ndax dañ ko décentralisé ci dëkk bi nga xam ne moom mooy wax nguna ñu ngi jot lettre madame Sall Awa Dieye di Séeri Bachir Sall depuis Maris madame Awa Diop depuis Pikine ak Awa Jonn madame Jaxate ñoom ña nga ca Ngor lébu mu ngi leen di nuyu ah Toufa création xaritu xale yi depuis Ngor moom tamit ñu ngi koy nuyu waaye mbokk yi ñu jàpp leen ne wax dëgg yàlla te Serigne Mamor Mbacke borom baat yéen borom social yónnee na fi ñaari tonu ceeb ak tonu diwlin ak tonu ak tonu tonu tonu jàppale ko ci oustaz Abou Bilal ci waxtaan bi. kookooy Serigne Mame Mor Mbacké borom baatin mu Serigne Habibou Mbacké surtout Serigne Madoumbe Xaban bi yónnee na fi ñaari million def ko ci enveloppe nee nañ ko jox néew waaw ñaari millions yi nag mu ngi nii mu teg nee na nañ ko jox ah koo xam ne faqiir la ku sonn waaw koy ku sonn rek na nga ñëw koo xam ne dafa sonn torox ñàkk koo xam ne dafa sonn torox xam ne dafa sonn torox ñàkk gisul ndey gisul baay gisul rakk waxaat ko waxaat ko waxtaanu koor ci yor yoru ko defee ñi nga xam ne dañuy ba seen doom yi ñuy taxawaado te war leen téye ci kër yi li koy indi moom mooy fitna ab ustaas buy waaraatee am koo xam ne dafa tàggoo xelam ñoo dugg ci loolu bu fekkee ne gëm nga yàlla doo daw bu doon oustaz tappe di buqat <laughs> yi daw nañ bu yàgg ah waa la ko oustaz si doon waaraate ci télé bu mag bi TFM fekk ñu bàyyi buntu bi rek xale bi ànd ak ñàkk ànd ak sogom rek yor kuur dugg fi keroog Pape an xawma ci duusi la faran xawma am déet génnoon moo Modou Fall keroog boobu dafa sañse sol ensemble waaye Modou Fall tamit oustaz yi danaa wax ak moom ndax dafa am jësit bu weex bu réer ndekete moo ko sol keroog bi mu solee ensemble costume bi daal yi mu sol boo ko xoolee day mel ne jësit la sol yu bu weex waaye daal yi gudd na gudd goo xam ne dem na ba tiim kanamam ma doon laajte ndax ki ko doon jëndal daal la da ko laajul pointure am euh, oustaz euh, moo Fall kenn xamuloo ne da nga tuuti waaye keroog weer nga sa bopp te xam naa ki la doon paaseel simis bi benn kol gi da ko fàtte paase moo tax mu lafu ñaareel bi mooy mbagg veste yi tàmmoo ko ndax jéeg nga jékki ni mel na kuy wagu mel na kuy ak garaam bu bu nekkatee costume nga sol oustaz Modou Fall daal yu weex yi nga sol amul benn couleur bu mu marié ak simis bi daal yi mu ni mel na kuy génn sarax soow nga mel na ku jël soow rek sol ko di yagar yagar ñu ne dégg nga waay nga sol veste ñuuxu toog ndax garaam bu ngay mbuunu toog ci kaw costume da ngay aj say mbagg say mbagg mbagg garaam bu la ak mbagg sabadoor du mbagg costume su ko defee loolu kenn ku ma doon laaj ne loo xam ci sañse oustaz Modou Fall bi naa ma ñu ngi la ciy xaar mën a ko xam sa bopp moo gën ñu woo di la ko wax mbokk yi ñu tàggatoo ak yéen jox daje incha allah ci même heure même fréquence seen oustaz Abou Bilal ci waxtaanu koor ci yor yoru koor